waaw ma ne ça fait des années rek ñu ngi ñaaru naqar bi euh, te booba léegi gisuñu ñu saafaraal ñu ko toujours waa ONAS dañuy yónnee benn oto mu ñëw manque ndox bi wàcc bu nit yi sanguwaatee mu génnaat waaw lii solution bi mooy ñu réparer li nga xam ne moom mooy jafe parce que yaakaar naa euh, fenn fu ñu fa demee euh, ñu gis ne dafa bouché rek kon foofu am na bloc foo xam ne dafa bloqué léegi nag li nga xam ne dafa bloqué moom la ñuy jéem fexe ñu débloqué ko pour mun a dimbali askan bi parce que tamit ñun tamit sonn nañu ah dëkk ci lii nii la gars yi di xuusee di jaar ci ndoxu boucher bi pour dugg seen biir ah, kër moom la dund moom gisoo moom la ñuy dund moom la ñuy dund fii si biir HLM ñun ñii ñëpp ay riverains lañu fii la ñu dëkk amuñu fenn fu ñu mun a dem te maa ngi alerté waxuñu ñi ñëw rek jël seen yi peel di yëngal loolu lu yomb la lii c'est un problème qui est très sérieux c'est un problème très grave même war nañu rus sax taxaw fii nii si fii nii HLM HLM nga xam ne mën naa ne Mor Sicap ñoo yem donc dañoo war a jug ci lii ci mu gën a gaaw gaaw li ñuy ñaawlu daal mooy boucher bi nga xam ne moo am ci koñ bi xoolal nit yi di romb nii ñu li ñuy wax rek euh, confirmation baa ngi nii nit yi dañuy wàcc liggéey si biir boucher bi la ñuy xuus pour di mën a dugg seen biir kër waaw mu ndokk loo xam ne rek euh, tiis la nekk loo xam ne naqar la waaw ñuy ñaan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, wàllu environnement mm-hmm. ñu dimbali ñu si comme que ñun ñaawlu nañu ko ci mairie bi jooytu nañ ko ci mairie bi pour mairie bi nekk suñu branlon mais boobu ba léegi gisuñu mu def benn pas à chaque fois suñu ñëwee ci ñoom di wax ñu ñoom du seen compétence comme nag ñi nga xam ne nag seen prérogative la ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu si lii nga xam ne mooy boucher bi am ci route bi di wax asalaamaaleykum actuellement ñu ngi si événement tabaski te fii dafa sensible mooy marché HLM bu bi ngeen di dégg mooy koñ bii marché bi moo nekk nii am na ay étrangers yu fi nekk di ñaw na di yóbbu seen dëkk di jaay mooy guinéen yi nigériens yi maliens yi ñoom ñëpp fii la ñuy jaar ak seen ay mbuusu bagage te xam ngeen ni ñoom ay étrangers lañu bu ñu nekkee si dëkk bi dañoo war a nekk ci sécurité suñu demee nag bay jéggi yenn koñ yi di jaar foo xamante ne salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar jeexle moo tax ma jug heure bi parce que heure bi moo nekkoon sama heure nelaw mais actuellement sonn nañu sonn nañu on peut pas vivre en paix avec l'assainissement là sonn nañu sonn nañu maire baa ngi nii suñu côté maire bi ñu ngi fi suñu côté à côté mais suñu kër yi boo fay dugg ci xeer yi ngay jàpp wala nit jàpp la nit ci téye la pour nga mën a génn mag ñi bu ñu feebaree sax nit ñee la ñuy téye pour nga génn hmm. te loolu dañuy ñu ngi dund situation bu désastreuse def fu nekk jooy nañ ko fa fu nekk temps yi ay journaliste ñëw nañ fi def fi de leeral def fi ay reportage mais taxul leen lenn leen leen pour ñu ñu régler ko fii xoolal kër yi ni mu noonu xoolal kër yi ni mu noonu xelo xet je ne peux pas respirer vraiment vraiment actuellement méttu bopp laa amee pour génn fii sax pour ñiy filmer lii c'est tout un problème ngir yàlla garanti bi le leen ñi ngeen war nañu si li wala ngeen ut ay solution adéquate immédiate ndax di ni nous payons des factures factures yi TVA yi dañ koy dagg mm-hmm. facture du tardé booy xool mm-hmm. donc ndax actuellement ñi dañoo war a satisfaire mm-hmm. parce que ñuy vivre fii su ay priorité lañu HLM H&M lañu dëkk ñu noo ngi résidé wu HLM mais dañoo war a jàppale aussi sonn nañu sonn nañu fatigué salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñoo ngi ziar suñu mbokk téléspectateurs yi di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ñun nag li ñuy ñaan mooy ñu dimbali ñu ci euh, li nga xam ne mooy suñu tiis waaw di sunu naxar nag dëkk ci koñ bëgg a génn sa kër mënoo génn ndax boucher te xam ne loolu moom catastrophe la waaw ndax mën na indi lu ne insécurité la ba pare en plus tamit suñu xoolee ndaw yi fi nekk ak mag ñi dëkk ci kër gi baaxul si seen santé ñun jeunes yi sax mun nañ comprendre mais mag ñi fi nekk ak ndaw yi baaxul seen santé kon nag ñu ngi leen di tàllal loxo si jafe-jafe bii nga xam ne moom la ñu am fii ci biir HLM Euh, cinq euh, nekk ci ginnaaw mairie bi nekk ci école bi nga xam ne moom la ñuy wax HLM 4 CD. waaw des fois sax boucher bi day déborder ba dugg ci biir école bi te xale yaa ngi fay jàngee. waaw mag ñi di ko nooyi matin midi soir. ça fait des. dafa am tamit lu ma bëgg a actuellement nii ñu ngi nekk si événement tabaski ñekk fi nga xamante ne nii mooy HLM mooy marché HLM marché HLM moo nekk si ginnaaw nii actuellement dañoom ay étrangers ay maliens ay guinéens. ay nigériens gens ñoom dañuy ñëw ñawlu fii ay yére de pour dem jaay seen dëkk. te ñëpp xam nañu ni Sénégal mooy pays de la Teranga. donc su ay étranger ñëwee si dëkk bi ñëw di liggéey si dañoo war a nekk dans de très condition nekk à l'aise lii tax ñu nekk dans de très bonnes conditions ñu nekk à l'aise mooy dañoo war yoon bii nii fii yoon bii moo jëm si marché bi ne. birante kat moo jël semence bi mais dañuy yor seen ay bouche bi dévier koñ bi di jaar feneen ak feneen te fi ñuy jaar leneen mën na leen fa dal mm-hmm. li ñu bëgg daal mooy événement tabaski bi ñoom ñun tamit fii lañu dëkk tabaski fii dañuy rayee suñu xar te lii ñu gis yi dugul te loolu war waru leen ko seetaan loolu dafa ñaaw jàppale nañu ngir yàlla ngeen defaral ñu suñu lii am tey mag yu tëdd fii feebar man balaa maa dee ñu lii compétence bu ñu war a defar la amatuñu li ñuy ñaan lii nekkatul ay ñaan obligation la nañu gars yi defaral suñu suñu boucher bii nii sinon nag affaire bi de ça va dégénérer mhm. billaahi wallaahi wal kitaab yoon yëpp dinañ ko fatt parce que si koñ bi lañ dëkk waa asalaamaaleykum askan bi asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi ziar ñëpp di nuyu suñu gouvernement bu bees bi fi nekk di leen ñaanal jàmm ak tawféex ah di ñaan nag changement parce que maintes reprises ñoo ngi euh, jooytu lii nii nga xam ne moo am ci koñ bi di Euh, nekk ci côté juma bi mag ñi di fi yeewoo ñëpp di fi julli seen te yàlla def boobu ba léegi ñoo ngi koy ñaawlu di ut wàllu waaw woo nañu télévision yi dugal nañ ko si média yi médiatise nañ ko def nañ lu ne mais booba léegi jàngoro bi mooy fii te xam na ne lii moom bokkul ci sante waaw lii day rey lépp lii moom bu ko gis rek ëmm na lépp ndax dafa ñaaw kenn mënu fi romb kenn mënu fi jàll te fii pas yoon la boo xam ne ñiy jógee Colobane ñëpp di xëy fii la jaar mag ñi julli ñu fajar nii la ñuy jaar ñun waa koñ bi moom ñun dañoo sonn lu ne def nañu ko fexe nañu jéem a xool fi koy jaarale mais ba tey luy solution bi daal mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàll wii nañ si jàppale ñun sonn nañu obligation la actuellement nii tollatuñu si ñaan waaw amatul ñaan obligation la wa rahmatullah taala wa barakaatu di leen sant di leen gërëm waaw gis ngeen situation bi ni mu demee nag depuis bi nawet bi passé ba léegi nawet bi mu passé ba léegi lii la ñuy dund actuellement ni nag tey moom tey moom dafa ëpp quoi dé du ma ne tey sax démb ak tey dafa ëpp ndox bi gis nga nu mu saltee nii te kër kër yi yëpp ay mag ñoo fi dëkk tamit lii moom jot na ko quoi mairie HLM bu fekkee maire Assane mënuñu jàppale monsieur le président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko jàppale leen ne ngir yàlla ngeen dugal ñu si lii quoi parce que lii ñaaw na trop koñ bi ñëpp ko feebar xoolal lii lii lii HLM 5 la amee lii lii. pare di mairie mairie HLM baa ngi nii si ginnaaw école HLM 4